parler man aussi tamit euh, wax naa si moom mooy affaire lanceur d'alerte yi yu nga xamante ne euh, moom la ñuy wax dañuy euh, def benn loi hmm? yow loolu nan nga ko gisee c'est une bonne chose wala. loi eh, de protection bien sûr moi je trouve que c'est une très bonne chose parce que et je comprends aussi l'initiative parce que pour avoir pour l'avoir vécu le régime en place précisément le président c'est la moo nekk ci les questions de lancer des alertes d'alerter d'informer juste et vrai peut-être loolu moo tax aujourd'hui ba mu toogee mu wax ko lors de sa déclaration mu ñëwaat aussi di ko acté par le biais d'une euh, d'un projet de loi bi nga xam ne war nañ ko proposer bientôt donc pour man aujourd'hui euh, dañuy xaar libellé projet de loi bi xool lan lañ ci yenn disposition lañ ciy dugal mu nekk loo xamante ne aujourd'hui ça ne va pas aussi créer le désordre mais dina permettre képp ki nga xamante ne gis nga loo xamante ne c'est un déphasage avec l'intérêt national mu ko yëgle te dara du ko ci fekk. Est-ce qu'il y a ci affaire bi. des comme pour des qui risques, pour euh, pour faire des, des dérives quoi. mais justement moo tax ma ni y aura une, une loi qui sera encadrée bi tenir en compte toutes ces questions là toutes ces préoccupations. mais vous êtes pour quoi. mais bien sûr. parce que nous dans la plupart de ce que nous faisons nous faisons des des des des, alertes sur des situations euh, yi nga xamante ne jàpp nañ ni war nañ ci jël ay mesures. très bien.